waaw man léegi oo rek yaa ngi daw. xaalis bi am soxla jox ma ko rek. sa taal bi daal dama jël. déedéet. ah kon yow koy. sa nijaay foo jëlee gaz ba ma indiloo. yow nijaay gaz ba ma ko indiloo ba tey. saa yi ma ko ne dégg na sama kon bi léegi jeexam. xaajut bay jeex. waxoon naa ko de gis nga ñooñu. ay ndaanaan lañ. te kay bu demee na. indiwaat beni arrivage bu bees. bagage azıcık bari yu ba pare xam nga ñeneen ñi façon la ko. waaw léegi yokku nañ ca beneen muy juróom. yéen bu jëfandikoo jëgaan gas xam ne jëgaan gas gas. Ah. man weer bi dama daan jëfandikoo ñaari saako kër yi ba jël ñetti saako. Ah. léegi gis nañ njëg ñetti saako yooyu. Ah. ma sax suma gas bi. yóbbu ma aw juróomi weer. fii lañ koy fiile. Jos wan ji Jos wan ji kon ñoom joxuwuñ ba tey. boo ñëwee ba Kaalifin. waaw jël sunu sangum si la. waaw rek koo xal. ñun suñu xarit Ndiagane Gaz. ñoo ngi neexul ñoo ngi doon doon. yokk sa wér gu yaram yaxanal sa poos am Ndiagane Gaz jàpp naa ko duma ko mu sa bàyyi. doon laaj place bu yànj bii mooy fan fii mooy American Shop American Shop di place boo xam ni lépp loo fa soxla ci bagage rek boo duggee ci biir di ko fa fekk American Shop ay bagage yu quality ay bagage yu baax yoo xam ni fii rek nga ko mën amee ci njëg lu yomb lool bagage yi nga doon gént xamuloo woon fan nga koy amee fii ci American Shop rek la amee xoolal ma bagage yu rafet yi bépp xeetu bagage boo bëgg ci àdduna bi boo ñëwee fii ci American Shop ko fii ci biir American Shop am nañu jasmine rice eight kg ak 11.34 kg royal basmati rice 9.07 kg delice juice 1 litre mahbuba sunflower oil 5 litre members max extra virgin olive oil 3 litre mentos compote extra compote extra gum stick serif hydrating facial cleanser serif moisturizing cream sensodyne toothpaste honey bunch of oats Kilogix cornflakes Lipton tea yellow label, Lipton tea, American flavor, honey ginger tea, Pringles, famous, high tomato ketchup, French yellow mustard, high vinegar, Nivea roll-on, Nivea lotion, Nivea spray, Turf lotion, Turf roll-on, Fly Fix baby diaper, Cell pack, toilet rolls, Bounty kitchen rolls, Hojik's wife, Johnson lotion, Johnson shampoo, Johnson oil, Adobe soap, American soap, Saint bagage Mom moom la ñëpp doon xaar kon yéen ñi nga xam ne quality seen jaaxle jeex na place bi nag mu ngi fii ci Banjul number 15 Liberation Avenue wala yéen ñi dëkkee Ton Table amal nañu leen place foofu ca Ton Table opposite Afrimet net Trust Bank boo ci bëggee xam lu la gën a leer wooteel ci 250 9991 wala 345 9715 man maa ngi American Shop te képp ku bëgg bagage bu baax dawal fekk ma American Shop ñu defante yu baax ndax bagage yu baax rek moo fa am ci American Shop seen bagage am na quality te bagage bi yomb na lool daw leen gaaw maa ngi ca mbokk yi jaawel indil nañ leen semaine bi gën ci semaine yi muy Tiger Cement Tiger Cement bii moo gën ci semaine yi ndax lépp loo ko tabaxee dafay dëgër dañ ko mix ak product yu am solo ba saay boo ko tabaxee rek dafay wow koŋ ba lépp loo ko tabaxee mu dëgër jaa jaawel ak seen Tiger Cement bi man yéem na ma te quality bi benn la forty two point five R mooy quality bi moo gën ci quality yi ak doy waar te usine bi fii ci Gambia la nekk xoolal ma usine bi ni muy liggéeyee xoolal ni baag yi wàccee xoolal usine bi naka lay liggéeyee lii kenn mos taxalaat ne dina am fii ci Gambia waa jaawel ñoo ñu indil semaine bii di Taiga semaine ñu liggéeyee ko fii ci réew mi delloowaat ko ci réew mi ci njëglu yomb lool ak qualité bu amul fenn te ay doomi Gambien si ñoo ciy liggéey te nag dinañ door di soblaay benn benn saako ba ci troog sax boo ko soxlaa ñu soblaay la ko te sax dañ lay gunge bi nga dooree di tabax ba sa tabax di jeex du ma sa manqué moo tax ni ñaa ngi jógee fu ne di dem ci Taiga semaine bi nga xam ne jaawel moo ñu ko indil ndax dafa piire ñëpp moom la ñu taamu bu oto duggee oto génn phénomène nag am na fépp ci biir réew mi ak makkaani ja oil boo dem ci réew mi rawatina seen pétrole station seen price bi noonu la yombee waaye yemuñu foofu de ja oil daal raw nañu gaañi te kenn dootu leen dab ndax oil biñ leen di jaay moo xam essence la wala gasoil moo gën ci bépp essence wala gasoil képp koo xam ne da nga yor oto moo xam taxi la troc wala private wala lum ci mën a doon ja owel mooy jubluwaay bi essence bi mu leen di jaay wala gasoil bi moo gën ci seen machine yi ñoo gën a yombale te sakkan le lool te am na ñoo xam ne dañuy jaay owel waaye nag amuñu doole jaawel mën na leena a soblaay ñoom ñuy jaayaat fii ci biir réew waaw sa waay pare na ah suma waay bu ma dawee ba daw ah. ba gis risafta dinaa koti gis jaa oil dugga carax am naa ne dooma woon fen fu bon te nag suñu bos la ñoo ko moom dinaa ñëwaat <laughs> boo ci bëggee xam lu la gën a leer wooteel ci 98 59 308 395 98 08 714 72 73 ak Jaawel produit bu quality ak liggéey bu baax about Platinum Properties? No. What's that? Well, Platinum Properties is a real estate agency located at Sukuta traffic lights on the Turntable Highway, selling the best located lands with amazing deals. Fiinga hamne xam Platinum Properties kontaan naa lool ci seen professionnalism ak seen liggéey bu baax Platinum Properties ñëpp a leen ràññee ci njub ak liggéey bu baax ci dëkk bi seen béréb bii nga xam muy jàmban jëlli nekk place bu sell baax pour suma njaboot moo tax nag ma ñëw fii platinum properties je kibare dimal sambale nang ñin sunkari buñaariŋo kono wala monti ne korda sang ila keno meŋ be jambanjeeli dalasi wuli keme aniŋ muwanniŋ luulu jaba boto sukuru boto aniŋ tabirilantulo i bawole diile la adu ite feŋ la jee for more information call us on 397-1669 or 760-5414 platinum properties your best choice for your dream home bi ma ne sarax ci bi la boutique dama and ak mbégte liko waral moy dañu ma make up make up bu fashion bi ma ci make up bi eh man namatuma dem dubai day di di da waye xeetu abaye ma gis ci bi la boutique gisuma ko fenn ci réew mi damay sol lu ma neex yi abaye yu quality rafet sañse tegu ci ta fi rek la am li ci dress tamit lu mu doon xolal xal bi nu mu koy tempee tekki ci suku ta highway bo jógee ci bagaras ba nga romba traffic light bi di dem ci jumaa ji bàyyi sa xel di nga gis bi la boutique m boutique dress boo fi gis abaye boo fi gis am na dàllam am na poosam am lépp li nga xamante jigéen da koy soxla wala li wurus ngalam lii di ay ceen ay montur ay jaaru xoolal ma yii xeetu brodé yu qualité til brodé ji piir seen brodé fay na prix de wala nga dem ci seen online page bi e an m boutique soo duggee facebook gis leen nga oda foo munti nekk ci biir réew mi dañu la fay fekk indi la sa oda jarul sax nga déplacé di dem wala nga yëkkat sa téléphone jokkoo ak ñoom

am na cafka cocktail lépp ci biir am na cafka orange lépp di saf biir biir gi ci juus ak neex neex gi mu àndal dama ne Sunquick juice ak kasakan pour bépp xew-xewi jamono mun ngeen ko amee ca màkkaan gu 61 Lehman Street wala ca Avenue ak supermarket ak boutique ci biir réew 924 4331 wala 244 2485 moji Lido basmati rice produced specific farms from North India. Lido basmati is perfect for good health. number one selling basmati rice in West Africa. nekk di ko daxa pour mu dem de dafa nekk di la daxa pour nga dem. waaw taw yaayam lan moo tax yow kii mënuloo ko yaatal ci kër gi yow kii duy ndogu kiram mu ñëw sa kër warul ndogu nga di ko daxa ne ko daxa xaj lu xam nga kii xanaa xamuloo yow yàggee naa nuróog bii te ko la koñ bi yëpp ñu ngi wax ne yow bii nga mënuloo bàyyi saa yu ñëwee nga naan ko bii te yow sa bopp ngay bii. nijaay. nga fu la waay fekk yaa ngi gurguti rek looy gurguti nii ah maa sama di ñu xuli sama di. asalaamaaleykum. waaw. yàlla rek. jékki nii sama xarit ma la may dëri. ah jékki nii rek xarit. eh sama xarit. te nag moom damaa damaa naan ndox bu bare bare. bare bare bare. Ah. walaay. ah tey moom da ngeen di réer. dina ko xam laa réew. xam ah, naa tey moom dinañ ko dee réer. naa bëri gi sax dina ko dee réer. dina ko tiis naa bëri gi ci boobu noonu laa xalaat. taw yaa na nga. waaye léegi loolu nga xamoon taw yaa am na bu tàng bi kon tàng la doon. am na bu tàng flash. pour bu zéro sax. waaw gannaaw bàyyi ko noonu nañ leen ba pare. comme naa ngeen ndox ko sànq jël. tout sa bool tout sa bool tegil gaz bi. ñaar ñi ñoo bokk benn kër ca mbanda ñoo àndaat daal féeri ñëw di ut liggéey ñu tasaaro kii am fii kii am fii waaye moom boo xam daf koy ber yenn saa yi bu xale yi desale lay lekk bu xale yi desalu du lekk waaye bu ñëwee fi taw bi yaam daf ko daaxa comme ku daaxa bi moo tax ba ne ma tax moo la ma bàyyi ne ma lii. ma ne ko salaat sama fu salaat sama miin ngay. Ah. man maa ñàkk dem ah sa xarit. yee waaye bii. ak sa tool toolu saa wala nga bàyyi bay saa. de gannaaw ko nga laa war a def waaye fu mu nii xam ganaar yi fañ bëri. Mm-hmm. ganaar yi bëy yi te su ma léem ba fa fa yàqu. non non loolu noonu. xaw lekkal.

nijaay da nga fóot nijaay. kër da gan ñi nag li ñoo xokkante fu bëri wax la ne ñu jox ku xam gan fañ laa ñee wala nga ñeete comme man kër gi gan laa fi di lekk ma fi indi ma ngeen defar palaat bi fa xiif boo amee gan sa mag mu dikk xiif fa nga xam ne fa xiif. mais boo lekkee lii doo mën a reer de. ah ba ba ba xam ne ko rek. Platinum Properties, your best choice for your dream home. Product bu quality ak liggéey bu baax. Number one selling basmati rice in West Africa. Na cafka cocktail. Lépp lu ngeen soxla fii la nekk.